tey euh, mu am ñenn ci ay opposition yoo xam ne génn nañ ñu def ko ni leen ko démocratie maye mooy ñu jàngat liñ gis ci ginnaaw bi ñu falee président de la république ba mu def téeméeri fan ana ñoom lan lañ jàngat ci téeméeri fan yooyu président de la république moom itam ci lu tombe comme ni mu ko mën a waxe mu génn waxtaan ak sénégalais yi waaye mu yemook daanaka bi muy def téeméeri fan waaye bi muy tàmbali dafa wax ne moom wootewul pour def bilan te mënta sax def bilan parce que bu fekkee bilan matériel bi sénégalais yi di xaar damay wax ne loolu mënul nekk parce que tey bu fekkonte ne monsieur le président de la république Bassirou joomaay Diakhar Faye dañu ko fal ne ko li ñu la falee mooy benn doomu Sénégal bu nekk ameel nga ko benn bouteille yu si mënul réaliser doomu sénégalais bu nekk mu jox la benn bouteille yu si ci 100 jours mënu ko su fekkee bitim réew lay wute ji jiba su demee passé commande bi ca usine ba balaa ñu koy liggéey ba koy jaarale ci bato yi ba muy ñëw bañ koy distribuer ba sénégalais bu nekk di jot sa bouteille cent jours day mat bu doon ci réew mi lañ koy defaree sax passé commande bi defar ko distribuer ko rek xaju fi kon loo xam ne buñ la waxoon sénégalais bu nekk benn bouteille yu nga koy jox sax mënoo ko kooku ku la wax nga réaliser fi loo xam ne loxo da koy laal vraiment ki la koy laaj kooku bu paree dañ koo war a yóbbu faan dem faji ko parce que loolu xel nanguwu ko waaye man bi ma seetaanee président de la république mu ne moom deful bilan ma ne man de dinaa fekk maa nga ca màkka maa ngi euh, nuyu ñëpp sax ci loolu di ñaan yàlla mu nangu ñaan yi ma ne bu ma demee Sénégal man dinaa woote conférence de presse te dinaa def bilan man ci 100 jours yi naam président de la république deful bilan mais man de damay def bilan te bilan boobu su ma ko defee ba pare jàpp naa ne mboolem peuple Sénégal dinañ nangu ne bilan am na te bilan bu musul am sax am na loolu lan ma lañ ciy jëkk a wax mooy dafa am lu ñuy wax bilan matériel am lu ñuy wax bilan matériel bilan matériel nag ñun Sénégal moom la ñuy gën a jël di ko waxtaanee euh, Ablaye Wade defar na fi aéroport Ablaye Wade defar na autoroute Macky defar na terre. defal na BRT mais bilan matériel daanaka amul solo lool te bu amee solo sax dafa nekkul loo xam ne benn président de la république mën naa taxaw mu ne bilan matériel bii man maa ko defaral Sénégal cent pour cent mënu ko lan moo tax mënu ko mooy tey aéroport jas soo ko doon wax da koy boole ci réalisation yi nga xam ne ab lay wàdd moo ko fi bàyyi waaye soo calculé woon li Macky Sall magistère u Macky Sall liñ fay ci AIBD magistère u Ablaye Wade bi ko réalisé fayu ko ci soo doon jël maa ngi dégg rek barki démb dàmbooj di ko wax li Macky Sall réalisé ci senegal muy lu mel ne TER lu mel ne BRT lu mel ne stade Ablaye Wade tey jii li ci jomaa yi war a yenu di ko fay ci magistère am Macky Sall mi ko réalisé du ko ci fay waa léegi am mbir micro bii ki ko waxaale waxaale ko ba mu normal ba xam prix bi ñaata la lépp ak ki ak ki ko fay buñ ko doon xëccoo kan moo ko moom normalement kon dañuy wax ne ki ki fay moo ko war a moom kon bilan matériel bi sax da nga dul xam boo ko doon moomale président yi ana kan ci président yi nga koy moomale mais 100 jours yii ñu am dafa nekk 100 jours yoo xam ne képp kuy doxal sa xel tey xool di nga gis ne. Sénégal am na 100 jours yoo xamante ne mosu ko am ci histoire am ñu njëkk koo tàmbalee rek ci am nañ président boo xam ne tey amul benn ndombal tànk parti politique bu mu làmboo bu dul nekk président de la république loolu 1960 ba 2023 Sénégal mosu ko am mas na maa dégg nag président Macky Sall daat ne bilan matériel moo baax waaye bilan immatériel du dara man bis boobu nag la croix Macky sàll génnee ko ci ëttu borom xam-xam yi moom man dootuma ko jàppee borom xam-xam ci sama dund. parce que Macky Sall mi taxaw daat ne bilan immatériel amul xamul ne moom mii wax bilan immatériel la ku laajoon Macky sàll ana yow fan nga teg di fanaan ci palais bi te man du ma fa fanaan ngay yónni gendarme yi ñuy daw te man du leen yónni ana lan la est-ce que matériel la Macky Sall di génnee ne lii la. wala lu immatériel moo tax mu man loolu kon dëgg-dëgg mbir mi du du matériel bu ñuy laal mais lu immatériel la lu immatériel loolu nag nañu xool président de la république boo xam ne day politique am parti lan la daan coûter Sénégal ak lan la daan yàq ci xar kanamu démocratie Sénégal Senghor ak Mamadou Dia Mamadou ja moo seere woon parti bi Senghor seere réew mi mais bëggoon a am accès ci parti bi tax na bakkan yu bari des parce que xeexu Mamadou Dia ak Senghor boo ci dindee seen parti politique mu jeex kon coûté na Sénégal lu bari président boo xam ne dafay am ay position ci politique ñu jóge ci Senghor Sénégal mujjul régler problème boobu Abdou juuf ñëw xam nga parti socialiste jamonoy abdu Diouf fan lañ daan defee seeni réunion biir assemblée national biir assemblée nationale le parti socialiste daan organiser ay réunion politique boo demee ci mémoire Abdou Diouf Abdou Diouf bind na ko fa Sénégal mu jul am sansu bénéficier woo ab président boo xamante ne moom day nangoo nekk président Sénégal rek mais du nangoo bokk bàyyi politique ak ay position politique Abdou Diouf nekk fi ba jóge fi Sénégal amul sensu am pro am loolu ñu indi Ablaye Wade moom demul assemblée dafa def ay réunion politique am mais biir palais de la république la daan jël di fa organiser ay réunion politique di fa sabar di fa def ay ay ay ndaje politique am ba 12 ans yi fi Ablaye Wade nekk yépp Sénégal président bu am ay position politique nekk président parti nekk président Sénégal loolu lañ amoon Macky sàll bi mu ñëwee moom moo gën a dee ñëpp day taxaw jàkkaarloog Sénégalais yi di def discours à la nation li ci ginnaawam lépp maro bees la koy def ñëpp gis nañ ko maanaam nga xam ne dafa jël maanaam drapeau Sénégal yemale ko ak drapeau APR foo gis Macky sàll da ngay gis drapeau Sénégal nii ñu ne lii mooy drapeau Sénégal bi mu séq ak sénégalais yi waaye lu maro bees lee mooy maro bees bi mu séq ak waa parteem nga xam ne da nga dul xam Macky sàll sax moom APR ak Sénégal lan moo ko ci gënal loolu lañ doon dund ñu koy jooy ca Senghor fajuwut di ko jooy ci Abdou Diouf fajuwut jooy ko ci Ablaye Wade fajuwut jooy ko ci Macky Sall fajuwut bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñëw toogee dana jërul ngeen koy jooy man may naa leen loolu gratuit man du ma nekk président benn parti du ma nekk ci benn diriger benn parti wala.